<laughs> waaw te gis ngeen sama papa Doudou Wade moom moo téye micro bi na ma suukar nañ ko suukar ah voilà yàlla dafa def man xeex rek moo ma ñëw xeex rek xeex a tax ñu tàqale ma sama njaboot xeex moo tax ñu tëj ma kaso fii Sénégal xeex moo tax ñu toog fii ñu toog suma frère Guy Marius Sagna dafa wax lu am man du ma nangu ku ma yab comme suma frère Ousmane du ma nangu ku moo tax yéen jeunesse Pikine yuuxu dafa yomb rek takk sa ndigg xeer dafa jot parce que li tax mu jot bu fekkee ne da toog sa buntu di réclamer sàcc ba dëkkandoo fépp Ziguinchor Thiès Casa fépp fépp ci Sénégal rek ñëpp bàyyi seen unité ñëw fekk si la di la dimbali xeex bi loolu mooy xar sa tànku tubéy jot na yéen jeunesse Pikine laay waxal parce que fii mooy Pikine keroog bi ñu jógee ñoom ne dañuy bundu xatal suñu frère Ousmane Sonko en mois de mars defe naa lépp Pikine la kon bu bàyyee yitteem yëpp ak honoré biñ ko honoré mu bàyyi Ziguinchor ñëw toog fii pour njukkal leen àndaat ak yéen ci xeex mooy xar seen tànk dugay jot na te foofu lañ toll leneen li ci des nag xam ngeen man fi ma moome yéen koy laaj waaw mooy waa ji bu bañee ku ko xorom nañu jox suñu parce que dama promettre askanu Pikine dama ànd ak Cheikh Dieng ñu wër Pikine yëpp ma promettre leen ne leen kii mook Macky Sall laa yemale parce que ay doomu Sénégal lañ mais compétence nekk ci moom moo tax ma ànd ak moom kon ànd boobu ma ànd ak moom fulla ji ci nekk moom moo war a nekk ci bépp doomu Pikine mooy nañu timboo jox suñu caabi par force par force ah. xoolal gën ay chars de combat wàcce bi nag jël police wàcce bi nag yooyu yëpp ci tëllu Pikine parce que fii mooy Pikine c'est la pikinité ñun yàlla daf ñu may lépp ci doole may ñu ba may ñu sax administration bi nga xamante ni Macky Sall moom la bëgg a jël teg ko suñu kaw ñëpp ay doomu Pikine lañ kon xam leen ne ñoom dañuy seetaan parce que du ñu nangu ko sàcc seen élection te loolu leer laa leen di wax ñu nag ñoo ma dëkk jeunes yëpp dañ leen ñoom ñooy ndékkeendoo ñooy añandoo ñooy reerandoo te ñoom ñëpp dañoo d'accord ne docteur Cheikh Dieng parce que ñoom ñoo nekkoon ci école yi ñoom ñoo déglu waa kër Ablaye Timbo taxaw ci biir bayaalu école yi di wax ne Cheikh Dieng moo gagné élection yi ñun ànd ñoo Ablaye Timbo voté luñ ko kon bu loolu amee yéen ñu demoon voté ji am leen fulla te xam ne foqati ak déjjanti moo jot dégg ngeen ko ah yoo xam ngeen slogan waa Pikine ah mooy lan déjjanti déjjanti déjjanti dama déglu sama beneen sœur bu féete golf di gaynde am na Ousmane ne dafay créer moom tamit mouvement ak coalition boo xamante ni moom lañuy ñuy woowee coalition doggali kon doggali déjjati Macky na xam ne dee na ba pare parce que fii fi am jàmm li am Pikine nag man li ma ci jànge ku nekk xam na ne Assane Diouf Gaye ku nekk xam na ko man kenn daaw ma xaar ku ma ne noppi daaw ma xaar ku ma ne jot na mais comme ñoom dañuy yor seen administration boo xamante ni boo ne heure rek ñu daw dajji seen buntu gàddu yóbbu say mbokk toog naan libéré libéré loolu laa dul may waa Pikine fi mu toll nii damay ànd ak yéen buñ dee dee ñu am ànd dee parce que yeneen élection yu ëpp importance ngi ñëw te yeewu wàllu ak képp um mën ci doon ñun ay sénégalais kenn duñu ko xañ parce que doggali boobu ñuy wax day am par force bi day am par force kon wasalaam di Ousmane di la ñaanal yàlla. nan laa ko war a waxee. nee na burok. voilà di la ñaanal yàlla. nee ko burok ak burok soo bokkul de. yee nee na burok ak burok soo du benn. am ngeen ne kii du burok soo ah. voilà xam nga commentaire bu nekk jaar nañ fi taabal ji. ji nañ ko décce ji nañ ko xalifa. jiñ ko sax ma yoroo jiñ nañ ko ku ne mais fii mburoog soo amu fi góor du toog ci table bi xool ay góor rek du toog ci table bi moo tax kii ngeen ñaanal ko yàlla defal ko jàmm yaakaar bi jeunesse am ci moment ah, ñu mottali ko incha allahu rabbi di ñaanal waa ñu jariñu ci moom nuñ ko mën